bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah tey jii mooy guddeeg juróom-beel gi ci koor gi naafile gi tey ñeenti rakka la rakka bu ne fatiha benn yoon alam nashrah na ñetti yoon ñeenti rakka ñaari sëlmal rakka bu ne yoon ñetti yoon xul wallaahu ahad mooy itam ñetti yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah